salaatullahi wasalaamu aleykum barki maam Cheikh Ibrahima Fall wa rahmatullahi wa barakaatuhu taala aleykum leen di ziaraat baax a baax di ñaan yàlla sunu borom yàggal fi lool sëriñ Muntaxa Basiiru Mbàkke njabootu sëriñ Tuubaa gépp njabootu maam Sëriñ Fall gi sëriñ Cheikh Jëmb Fall sëriñ Alaaji Basiiru di ziaraat rek mbokk taalibe yi nga xam ñoo fi teew ñàpp tabaarkalla di ziar itam waa rajo bi ak waa télé bi di ñaan rek ci àdduna bi li nga xam ne moo fi jot a wàcc nii sunu boroom jëlee ko fi te seral ko bu baax a baax a baax a baax ak ndox mu sedd guy ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme moom la ñu bokk xam naa foofu lañ koy tàmbalee rek baa tàgge boo gis day am jàppal ma diw tàgge boo gis daal day am jàppal ma diw tàgge bi nag weesu wut jërëjëf sëñ Bamba jaaraama Sharafal fii nag ñu koy defee mate ko sëkk noo ngi ziar sëñ Ibrahima Ndim bu baax a baax sëñ Babacar Sall li ci jiitu mooy li ñu jàpp ne jullit moo tudd jullit jullit buñ naan mbalit luñ bale ba noppi moo tax ñu naan mbalit buñ naan jullit kuy julli te jullite. waxuñu kuy julli yaay julli de dañ ne kuy julli te jullite léegi lan mooy jullit ki bëgg a nekk jullit dafay mel ni saxaaba yi àndoon ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam rasulullahi sunu borom daf ko programmé bi mu jógee ci Ibrahima ba ci Abdullahi waajuram wu góor amul kenn ku ca ma sama yàlla moom rasulullah si ne Muhammad di ko Cheikh Ahmad Bamba wax ak mënul waraa Muhammad rasulullahi ak mënul waraa moo gën a mat ci mbindeef yi xalxan ca bind ba waxul xan ak ca jikko ja muhammad ak ku dut moom moo la gën a rafet jikko zahara nag la sëñ Tuubaa wax ca la gën a feeñ kon bu mu naan zahara la gën a feeñ kon am na lu nëbbu li nëbbu lu mu nabi li ko tàmbalee ci aadama ba ci moom branche bu yonent bi sallallahu alayhi waroon a jaaree pour wàcc sunu borom dafa sàmm dafa sàmm branche booba ba dara luy toq toq bu xaraam du ko rax ngir doon mu war a doon muxtaaru kiñ tànn li ko dal séddul fukk bokk ak baayam baay laata yàlla di ko yónni juróom benn dee mu des ñeent sax ñeent ñi yaakaar ne ñoo koy gëm ñaar nangu ñaar bañ am sa toog abbas ñoo nangu abu lahab ak abu jahil ñoo lànk rasulullahi li ko dal séddul muy woote ay baayam ay mbokkam alxuraan wàcc ci moom six mille six cent soixante six aaya alxuraan cent quatorze saar soixante isib cent vingt nisf deux cent quarante robo quatre cent quatre vingt sumun sept cent soixante dix sept mille quatre cent trente neuf araf trente deux mille deux cent zéro quinze ci ay baat trois millions sept cent soixante dix tomb waa màkk ne déedéet nabi ne leen ax problème bi lépp mooy diggante waaw ak déet lii dégg naa Cheikh Mountakha Mbacké Bachir mu wax ne wa kalimatullahi hiya al ulya maa gis benn benn benn vidéo bu sëñ Mountakha di wax loolu wa kalimatullahi hiya al ulya kaddu yàlla moo kawe kaddu yàlla léegi nag alxuraan moo wàcc ci Moustapha sallallahu alayhi wasallam waa Màkka weddi ko Sidi Hadji Malick Sy radiyallahu taala bind na wax ne rasulullahi yaalu yaalul jibaala Sidi Aji Malik nee na rasulullahi yaalul jibaala yaalu daan na yéeg ba tiim aljibaala montagne ya ñu ne ko yan montagne mu ne abaa xubay si montagne mu nuy wax abaa xubay si dafa kawe woon nag mu ne muridan ma ngay namm moom rasulullahi lu namm mu ne ramma jasadihi sànni yaramam nga xam ne boo xaru daganoon da koy def xamul tax dafa wax dëgg ba noppi ñu ne ko li nga wax amut te ñu koy wedd ne ñëpp doon ay mbokkam jege ko lool li ko dal seddul yëkkati loxoom dafa tëdd guddi mi ngi sol bolog bu cëkk Moustapha bari liwutoon wutoon amutoon ay compte bancaire yii de rasulullahi déedéet yàlla def na ko yaay sama xarit laataa yàlla di xaritoog moom diggante bu gàtt laataa muy ñëw jamono yàlla rayal ko baayam mu wéeru ci yaayam yàlla rayal ko yaay ji mu wéeru ci maamam juróom-ñetti at yàlla rayal ko maam ji Cheikh Sidi Aji Malick si radiyallahu taala anhu nee na aama samaanii wa faatal jaddi za suma haatimin wa anu sarwaana zul karami Sidi Aji Malick mu ne aama samaanii atum juróom-ñett ci dundug rasulullahi ñu ne ko lu mu tase mu ne faatal jaddi moo taseeg maamam ja faatu kan kan la naj lal ammi Abdul Manaaf moom lañ ko doon ruse de suma haatimin ci at mooma ci la haatim faatu ama samaani ci atum juróom-ñett ci dundu rasulullahi bi mu amee juróom-ñetti at haatim xam nga ko haatim ak anu sarwaan <coughs> haatim dafa tabe woon doon doon jullit nag waaye dafa baaxoon daan maye rek mas naa am benn bis haatim moo tax soxor baaxut sëñ bi haatim dafa ànd ak benn waay benn jaamam war fas di jëndi marchandise am benn jigéen bu xiif topp ci ginnaaw mu naan ko xaatim sama njaboot ga ñu démb ndékkiwuñ tey añu ñu tey xaatim xolam daw yëngu xaatim freiné fas yu mu waroon daal di yëkkati ngis gi mu yoroon doon ci jëndi marchandise daal di koy jox soxna si ne ko foo dëkk mu ne ko saam mu ne ko dama laa bëgg a jox fas wu jigéen woowu ma àndaloon nga war ko ndax mën a ñibbi saam bala sa naaj sa ndugg mee naaje soxna sa war fas wa gàddu ngise jaam bi ànd ak xaatim na xol bi commencé laaj waaye alali jàmbur loo ciy mer alali jàmbur jun ma joxe loo ciy mer waaye iñaane na ko ko comme fas wu jigéen bi dem waaye fas jigéen bi dafa am doom doom ji ndaw ji nag moo daw di topp yaay ji jaam bi nag iñaane na soxna si ñu jox la koppar yu toll nii nga war fas wu mel nii mu ànd ak doom nga nara a yóbbaale doom ji loolu du fi amee di daw topp doom ji xaatim nag ma nga war ca façon ma di kontom kontom yi di dox di dem rek di wax ak di wax ak moom nag ndekete ki muy waxal ma nga topp façon ndaw wa di daw di ko nangu ji mu wax wax geestu gisu ko sa waay lu xew mu ne ko dama doon nangu ji fas wu ndaw bi ndax yaay yaay ji ak xaalis bi kooku jël na ko léegi naa jël mu ne ko yow ci sa bopp maye mayewaale naa la léegi may naa soxna si koppar yi may ko fas wu mag wi may ko fas wu ndaw wi waale yow ci sa bopp àndal ak moom di ko liggéeyal kooku góor googu nag la Seydi Hadji Malick di wax ne at mam faatoo mooy aama samaani muy atum juróom-ñett ci dundu rasulullahi nabi am juróom-ñetti at waaye Seexul Xadim ne ne ak ma loolu moo gën a mat ci mbindee fi de bi muy nekk fii yombutoon ci moom fii lii suñu teraanga la tey ñu ne Ahmadou fii la nekkoon joggi ne fii tànkam sëñ Tuubaa laal na bâtiment bii laal na xeer wi laal naa ko waaw xaw ma fii ci senegal de ñu koy tuddee barkeelu waaye bu doon ci Europe aw xeer woo xam ne da nga naan Ali mas na koo laal wala diw sàngam wala Fidel Castro mas na koo laal ca foofa danañ am feneen fu ko teg dana am feneen fu ko teg ci ak seen yëg-yëg léegi nag nabee ngay dund juróom-ñetti at fukki at ak ñeent waaye xataa isa balaxa asudahu ba balaxa arbaina sanatan ci 40 ans ci la tëdd guddi ñu teg ko loxo ne ko yaa ayyuhal mudassir xum fa ansir wa rabbaka fa kabir wasiyaabaka foo tax yi war a gisa faajuru wala tam noonu a taksiri eh borom tëdd bu jekk bi jógal nabi ne bërit jóg taxaw sangu sol manto teg ci jàllaa bi doxantu sa ak marwa yëkkati loxoom bu tedd ba ne wama umiru illaa liya'budullaha muxlisiina mbooloo mu bari wër ko muy waaraate abou jahil saay-saay bi yor marchandise di ko jaay te gisul client mu ne lu xew fii ñu ne ko rasulullahi mooy waaraate abou jahil waaxu ba fekk ko fa mu nekk joxoñ ko ne ko da ngaa am xam ne ko waaw mu ne ko da wax ni yàllaa yoon ni nabi ne ko waaw abu jaahil ne ko sa xam-xam téye ko li ngay woote laaju ñu la ko fii nga juddoo abdoulahi mooy sa baay aminatu mooy sa yaay ay seeli giléem yi wow ngeen doon dunde maag sa baay ñoo bokk baay munoo fay mel nu ma xamut sa coow bari na ne ko fii ci màkka dañoo bari ay yàlla am nañ fi yàlla ju nuy wax laata ak yàlla ju ñuy wax husa ak yàlla ju nuy wax manaata ak yàlla ju nuy wax jibti ak yàlla ju ñuy wax taaxóot ak yàlla ju ñuy wax hubal ak ku wax zul kafay ni mooy yàlla ji am ñaari tenq yi ku xëy sa marché neex nga jàpp ne jul kafay nii moo ca jàpp yàlla yooyu yëpp mënuñoo arrangé problème mu dëkk bi yow Abdoulahi doon sa baay Aminata doon sa yaay nga juddoo fi maag sa baay ñu ko baay nga bëgg maa wootal yàlla joo xam ne su ma ko làmbee du ma ko daj su ma ko xoolee du ma ko gis pourtant wax na dëgg de ci xelum doomu aadama kese gëm yàlla yombut di surtout nag gëm yàlla ba noppi wóolu ko gëm yàlla ci boppam sax yombut waxumal nag gëm ko ba noppi nag wóolu ko parce que alquran nee na wallazina jaahadu fii naa lanahdiyannahum subulana gaa yi jaayante su boobaa de buñ jaayantee ba noppi ngir wóolu ma lanahdiyannahum subulana su boobaa danaa leen jubaleel sama yoon yi ngir ñu xam wan yoon la jaar ba ñëw ci man ay laissez-passer loolu la yàlla di wax ci jaahadu fii na nabee ngay màgg alxuraan a ngay wàcc Ababacar dugg na may saxaaba yi ñëw ñu de déedéet xataa isa balaxa asudahu wa balaxa arbaina sanatan moom kay da cee dal 40 ans yi rasulullah da cee dal rek 40 ans ak 40 ans yi Omar dugg si waxoon naa la Seydina Ousmane lu mu dajoon waxoon naa la Ousmane ne moo yoroon caabi Kaaba gi ak la ca xew lépp bu ma xamoon na yow la yàlla yónni ma jox la ko waaye wóoru ma keroog Alioune moo tëb jàpp loxo wi ñaar ko loxo ba damm caabi ji wadd ñu for ko tijji siyaare ba noppi. génn dañ koy yóbbaale bi ñu doxee tuuti yàlla wàcc aaya ne leen inna laaha ya'murukum an tu'addul amaanaati ilaa ñu dëpp ñëw di ko jox caabi ji mu ne man tam ab arab laa arab kenn du damm loxoom ba noppi di ko delloowaat teraanga ja bañ ñu gëddante ci nag Aliou nag ak Rasulullahi daan nag Ousmane kon ñun duñ dem yàlla wàcce na aaya pour ñu delloo la caabi ji mu ne nag comme yàlla tam jaral na jaral naa ko man moom mu wàcce aaya man tam asadu an laa la illallaahu wahdahu laa shariika lahu wa asadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu moom Seydina Ousmane ca la jaaree bari nañu doon ñëw Serigne Touba ñoo xamante ni Serigne Touba dafa toog fii njariñ ba mu yàgg mu rëdd ci suuf seexul xaddim daan na kaay ma làq la teewut ñu duma la da daal di rëddaat daan na kaay la ku la duma ma duma ko teewut ñu duma la duma ko delu rëddaat ne làqu leen ci man Ahmadu bi nga xam ne ko làqu ci man doo gis kuy dóore ko mbàkkee làqu leen ci yow Serigne Touba ne làqu ci ñu dóor leen ma làq lay tee ñu dóor la yàlla ñu Serigne bi làqal boppam fii la toog ci njëri moom yàgg mu rëdd ci suuf seexul xadim daan jamonoo ngi ñëw ñaar danaan gàññi benn mër ñaar danaan gàññi benn mër sëñ Tuubaa ne xam-xam danaan gàññi alal ne gàññi kerse ne mër xillatul xayaa yi xayaa yi néew kersa fi sibyaan ci waxambaane yi wa niswaan ak xale yu jigéen yi wa suubaan yi wa ak borom bi jaww yi saay-saay yi am na défilé de mode mooy lan ay mag yu am soixante-dix ans ay xale yu am dix-huit ans ku ci gën a rafet sa ab yeel fu ñu koy dugal ci lislaam loolu amul kër Cheikh Rafal kon nañ del dégg hmm? loolu la wax de ma sol manto manto bu jaune ak jalaab bu wert eh borom tëdd bu njëkk bi jógal ku am courage la Seydina Muhammad wallaay ku am courage la nag mu jóg nag ndeysaan dugg ci biir marché bi di dox ma nga sol manto bu jaune ak jàllaay bu wert ñu weer rek yëkkati loxoom ba wa maa umiru illaa li ya'budullaha muxlisiin ñenn ñi nangu ñëw ñenn ñi bañ ñu weddee ko fa wax ko fa lu ko naqaree ndeysaan mu am kersa day dugg këram mooy xelatul ay ji ma la doon wax léegi néew kersa doomu aadama soo ci génnee kersa la ca des amul solo Seydina Muhammad ku bare woon kersa la li ko yàlla di yónni yónni li muy wax li mu doon doon dëgg terewut mag ñoo ñooñu nga xam ne ñoo ko magee woon te li ko saa defal ñoom nangoo guñ ko te mi ngi am ci ñoom yërmaan ndax irham jami alwara ji Sëñ Tuubaa di wax nga xam ne dafa waññeeku rek dugg këram ñëw rek ndeysaan daal di jël mbàjj rek sàngu di jooy nag Muhammad wallahi di jooy yàlla yebal jibril ne ko wa maa arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin ne ko wa maa ilaa kaafatan li naasi nabi bërit encore ak courage déparaat na encore de <laughs> bu doon ci kër ma da ngaa sangu changé yére defar benn café tàggu njaboot génn alxuraan wàcc moom waxoon naa la ñaata aaya la sànq waxoon naa la ko wala waxuma ko woon waxoon naa ko waxoon naa alxuraan ñaata aaya la aaya yooyu ak tomb yi ak suq yi ak sàdd yi ak waxaf yi lu toll noonu moo nekkoon yi Moustapha Keroog te moom la Cheikhul Khadim di wax ne Cheikh Ibrahima Fall saa borom defal na ko teraanga ju toll laataa may gisee ak moom waaw Cheikh Ibra li tax ñu def lii mooy Cheikh Ibrahima dafa waxoon sëñ Tuubaa ko ki may wër lu ab yonent ma sa def dana ko defaat moo tax ma tàmbalee ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min bokk ñun ñëpp. lislaam man nga ne murit laa wala tijaan laa wala xaadir la wala laayeen laa waaye alxuraan ñun ñëpp ko bokk salaatu ala nabi ñun ñëpp ko bokk yonent yi ñun ñëpp a leen bokk rasulullahi ñun ñëpp ko bokk kon kay mayuk sëriñ tubaa gi nag am nañ droit waxtaane ko ngir jéem yonent bi ngir bégale ko ibaadatan lil xubbi walam takkun li tali bi ne ay ni sëriñ bi dañ koy sàkkoo waxtaane rek waaye duñ ci seetlu neex kenn maalu naqari kenn dañ koy waxta yàlla yi kese tax rek nabee nga màkka ay mbokka ma nga fa mu tëdd guddi nag ñu ne ko yaa ayyuhal mudassir na xum ee boroom tëdd bu njëkk bi jógal fa ansir war a bakka fa kabir wasiyaabaka fa taxir war a gisa fa hëjur wala tamnun ta taksir nabi ne bërit jóg sangu sol manto te ci jàllaa bi taxaw ne wama umiru illaa liya'budullaaha muxlisiina mbooloo mu bari wër ko abu jahl saay saay bi ñëw weddi ko nabi dugg këram ñu def déclaration ci télé ak rajo yi bu doon ci jamono bii tey wax ne ku jullit tisbaar ñu rey la Alioune ak Omar dégg na Abu Jaahil leen ku ñëw ci jàkka jullit tisbaar ñu ray la Alioune ak Omar daal ne ñun tam ku toog ci kër gi ñu ray la ni ñëpp gën dem jàkka ja comme ku dem jàkka ñu ray la ñun tam ku toog ci kër gi ñu ray la mu daal doy waar lool nag keroog yonent bi di jooy rek wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin wa maa arsalnaaka illaa kaafatan naa coow li bari lool yàlla yëbal jibril jox ko aaye ne ko demal boo demee ne rasulullahi waxul al wa zahaqa al baatilu ina al baatila kaana sahuqan waxal ak ñoom ne leen yàlla nee na dëgg ñëw na te kàcc jeex na indeel al baatila kaana sahuqan kàcc lu mu rafet rafet day tasaaroo Aliyun ak Omar li ñu wax ci laa ànd man yàlla na gaa yi génn dem jàkka ja booba junnee war jàkka ji junni war jàkka ja day yéefar beneen junni waraat junni boobu day yéefar ba mu doon fukki làng ñaar ñee doon jëy sun sun ñetti téeméer fukk ñett lañu woon moo tax boo demee ci kibritul ahmar bu maam serafal daf lay wax ne la téere yi dañoo juum ndax dañoo bind góor ña fàtte soxna ya te soxna ya ñoom ñoo nekkoon croix rouge ya ñoo doonoon sapeur pompier ya bari na ñu ca dagg seeni loxo ak ay gaañu gaañu soxna ya nekkoon ca waañ wa ak ñoo nekkoon croix rouge yi soxna ya nga xam ay jàmbaar lañu woon laa ilaaha illallaah Fatimatu bintu Rasulullah Fatimatu bintu xeex nañ benn xare boo xam ne Fatima dafa sol kaskat war fas ngàbbu jaasi di xeex ba nabi naan këlekum doon wóor leen ma góor yàlla gee bi xeex bi jeexee la su ko ñëw sukk ci kanamam bi mu summi la nag la ko nabi soo xam ne kii doomam la Fatima ak jàmbaare woon moo yaayu Assane ak Ousseynou moom lañ fayee soxna Assou Fall Cheikh Ibrahima Fall Baawul Mouridine moom lañ fayee soxna Assou Fall moo waral mu meloon noonu yooyu xam naa du ñàkk ci yeneen i kii parce que dañoo waxoon nañ jaar fii ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, xam naa loolu leneen la dañ ci jaaraat incha allahu taala waxtu wa jot na nag aaya bi wàcc na jaa alxaq wa zahaqal baatilu innal baatila kaana zahuqan ah alxuraan ordre la de ordre de mission gendarmerie bu ñu jotee ordre dañuy dem police bu jotee ordre service d'hygiène dañuy dem eaux et comme ci man doon boo jotee ordre ba ci télévision bi gars yi dem leen rek ñu dem waaw waaw léegi nag aay bi wàcc na jaa alxaq dëgg ñëw na de wasaaqal baatilu te yàlla suuxal na ay neen ak neen moom suux na xam nga lu koy suuxala ah? fukki junneeg ñaar ñoo wër jàkka ji léegi nag maam Cheikh Rafal nee na ñetti téeméer lañu ak juróom-ñaar fukk ak juróom jullit ñi fukki junne ak ñaar di yéefar ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñu ne ko faal mun ne soxna ya lañ fàtte woon ak juróomi tuut tànk yu nekkoon seen biiri waajur waaye fekk nañ jëf ja waaw nga xam ne salli wa salliman ala man xat ajaaba bi balaa kañ yow ma alastu awala xam la zawi takallumi laataa ruux yaay wuyu kon Sëriñ Tuubaa ay ruux ñoo doon jébbalu ci moom waxtu wi jot gaa ñi génn wuti jàkka ja comme aaya wàcc na ah dem jàkka jaa fa sës de ñu génn nag wuti jàkka ja junni wër jàkka ji junni wër leen junni wër leen junni leen ba mu doon fukki làng ak ñaar saxaaba yi jóge ci kër yi soxna si yor ay tojiti ndaa ñi yor ay dammiiti xàmb ñi yor ay dammiiti kuur kenn ku nekk ànd ak sa pas-pas lil fuqaraa al muhaajiriina lazina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadlan minallaahi wa ridwaanan wa yansuruna allah wa rasul ulaika hum saadiquna kooku ababacre sadiq la ñuy joxar bi waaye wala si ne tabo u daara wal imaana min qablihim yuhibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fi sudurihim haajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun wa man yuqa soha nafsihi fa ulaika humul muflihun ñooñu la yàlla doon jaayanteel gaañu wuti jàkka ja waxtu wa jot bilaal <laughs> bilaalu rabaa ak ay jàmbar bin ñëwee ba jub jàkk ñu tollu ñaar fukki mètre Seydina Aliyun moo ni cëpp ci façon waroon Abu Jaahil ca digg ba Sharafaan jaas jëm yor bal iyee lañ koy woowee nee na xeej ba mu yor bal aaw lañ koy woowe